بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله nuyu di ziyaara mboolem ñi fi teew di jiital ci nuyoo bi sëriñ muxtaar sunu turandoo mi yàlla dogal mu nekk ci bopp daara ji di ñaan yàlla mu dëgëral ko te wéral ko ba liggéey bii nekk ci loxoom gën a jëm kanam mu mel ni dikkuñ fi woon ngir yëkkati kàddu dañu dikkoon rek en tant doomu daara ngir wéttali sunuy mbokki daara fu ñu ñëw fekk fa sunu doyen Oustaz Alioune Sall mu yëkkati kàddu amatuñu fa kàddu ñu ngi koy nuyu di nuyu Oustaz Mbacke Sylla di leen jaajëfal ci liggéeyu lislaam bi ñu nekk waaye fu ñu dikk it fekk fa sëriñ xaadim njaay amuñu fa kàddu ndax aar daara buñ koy wax mën naa ne moom la kon kàddu gi nuy yëkkati kàddooma ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara waaye ñu ngi ànd ak sunu doomu ndey imaam Babacar Sylla waaye tamit sunu doomu ndey sëriñ Basiiru Gueye teewe fi ñaari tànk ni ngeen ko waxee teew nañ fi en tant que ñuy sàmm jikko teewal fi sunu coordonnateur sëriñ Babacar Mbuub waaye teew fii tamit ci turu aar daara ci turu sàmm ji ko sëriñ Fàllu Loo taxaw bu teewoon rek doy na bokk ci daara ji waaye bokk yi tamit ci ànd sàmm jikko yi mu mel ni sama kàddu sëriñ aas daf ko wax muy kàddu yu am solo daara ji waa daara ji ñoo ko mën a taxawe mais kuy xaar ci daara ji ñi génneewul ci daara ji te gëmuñu daara ji daara ji du taxaw ñeneen ña lañ ne moo leen ñor ña nga ca seeni milliards ya ñuy jot fa lañ am ndigal ngir dugal ko fa yàgg na noo wax jox leen ñu jox leen ñu te joxu ñunu dañ ñuy compal di ñu dig su demee ba ki doon tàllal loxoom naan laara bi laaraan di soli jasneer ni ko sëñ As waxee yuy sa jar ñaari junni mètre di dawali 4x4 di tabaxi étage na xam ne tàllal loxo bi war naa doy te mu jéem a defal boppam sëriñ As wane na yoon bi ak ñeneen ñu mel ni moom junni ci waa daara ji ku ne bu joxee junni ay million la wala million la buñ ko defee defati ko defati ko muy ay milliards bu yàggee dootuñ demandé ci poste de santé walay tali walay tool walay dara mais lépp ñoo koy defal suñu bopp bi ñuy wër ci cadre aar daara ba ñëw fii Kokki dafa am genn kàddu gu ñu kilifa gi wax gu ñu ndax dañu ñëw jàmbat ko li ñuy daj ndax daara ji dañoo bokk ci géew bi ba noppi ñu seppi ci sunu loxo joxuñu amuñu ñu dem tàllal loxo bëgg laaj ñu ne ñu du ngeen tàllala ci loxo di layoo ab feebar daara yu bari ñu tëj leen daara yu bari ñu jël leen delloo seeni ndongo looloo sabab aar daara juddu woon ñu ne nañu jug aar sunu daara yi lu ko moy danañu tas sunu daara yi donte nag du tas inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la fi dañ waaye nag la xaafidun nun lañ ko sunu borom bàyyeel subhaanahu wa taala ñoo ko war a sàmm bi loolu amee bi ñuy dox ba yegsi ci dëkk bi sëriñ bi daf nañu wax wax ju am solo daf nañu dafa am ñu ko woo ne ko dañoo bëggoon ngeen ñëw jël si ndimbal jël si ndimbal daaray kokki ni mu toll ñeenti junniy ndongo yu teg ñu naan leen kaay leen jël si ndimbal waaye sëriñ maxtaar loo jëf yàlla yàlla guddal fanam ci matam ak xam li mu doon ak xam li mu doon tax na mu ne yéenay ñan mu ne ko ñooy nun diw mu ne yéen laa dégg yéenay def nangam sëñ daara yi ah loolu ngeen di dimbale ne man soxlawuma ko ndax li ngeen di def daara yi yëg nañu ko te loolu ngeen di def daara yi nun ngeen ko def seen ndimbal seet leen ñeneen ñu ngeen ko jox ma ne ko sëriñ bi de li ma gën a jaaxal mooy kàddu ndimbal fi daaray kokki toll ñu naan dañ koy dimbale mais daara ji waruñu koo dimbale budget réew mi daaray kokki daf ci war a am pourcentage am 40 pour cent def nañ ko ci éducation nationale daaray Koki dafa war a am loo xam ne dañ ko voté muy subvention bu war a ñëw ci daara ji boo xam ne du bàyyeekoo ci ndongo daara yi waaye bu ko ñeneen deful waa daara ji nañu teg ku taxaw ndax maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baaqin li ñeneen ñi yor day jeex te lu yàlla yor du jeex te li yàlla yor nag jamono ji teg na ko ci loxo ndongo daara yi port ba ne conteneur ya fay wàcc bur lu woon ak waa daara ji ba léegi port ba daanu na marché yi yéen a fa ne bureau yi yéen fa ne kon daara ji yéen a ko mën a yëkkati mais keneen du ko yëkkati wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh,